salaamaaleykum gay yaayu Serigne Fallou Mbacke amati na ndam ndax ulita jaam la ulita maa ko faral fekk ko ci live muy yekk lu bon maam Ndiaye ma ne ko du ma ànd ak kuy tooñ ma laayifal ko mam Ndiaye dugg sama live tagg fa yaayam mu génn daan def jéggalu na maam Ndiaye Ndiaye Savon sénégalais yi di seetaan jéggalu na ko mi ngi koy baalu ak ñoom ñaar ñu dem di ko teg ci ko ko wàccal live bi maam Ndiaye doomu xaraam la ñëwal sama live bul dugg ci aadama bul ko baal moo ko bàyyee ma baale la parce que Soko non stress dafa nopp Oulita cinquante mille la koy dugalal Oulita yónnee data bi Oulita man mii bu ma ko dugalee les vingt mille mu envoyé ma dataam maa ngi preuve maa ngi tamit ay preuve yoo xamante ni ay vidéo la caga international mooy ulitaam yi maam Ndiaye Savon musta cagatu lu baax laa ko xamee di teral ay nit di dimbale ay nit kon yaayi sëñ Fàllu amatina ndam yow taxoo may gerte maam Ndiaye Savon xam nga la laal la sant maam Ndiaye Savon nga toog di liggéey bul gaaru waale bu ko tudd liggéeyal les imbéciles on répond par silence bu ma la déggtee nga wax tudd ko ma bala àdduna ak àllaaxira guerre bi nga bàyyi ma ko dinaa toj seen jotu ndey ñoom ñëpp so ko dinaa fekk mbaayam fi mu tëdd ndeyi bàmmeel bi juutal ko kat ko ba tur gi génnee bi tax ma dagg damal bi yaa ngi dégg ñoom ñëpp dinaa doxaan si ndey léegi nag ulita caga mu mag la nan déglu audio yi nga xamante si nii man ak ulita ñoo ko doon wax ba ma koy yónnee vingt cinq mille di ko yónnee pour mu wane data bi ak li ma koy solloo ak lan la bëgg ma sol déglu leen bu baax a baax ñu doog a continuer acca yaayu suñ fàllu amatina ndam parce que damay doomu séeréer non man nag du ma. ah mooy benn man yii laa bëgg nag damay bëgg man di gis physique beeg taay beeg yooyu yii laa soxla nag ah yii laay bëgg fii sax xaw naa xaw naa gàtt ndax ci kaw rek nga jël.